mel ni moo waral ñu daje tey ci suba si ñu amaloon ko kaamil alxuraan di ko ñaanal yàlla barkeel waaye mu mel ni jimbi ku mel ni suñu waajur bu tedd boobu ba jën laali yaakaar naa ni am na exemple boo xam ni àdduna bu ñuy féeti bis bii le 8 mars réew mi war nañu jege axlulaayi laaj leen ci soxna soosu ci ay qualité ak ay valeur am mboolem kuy ndaw nga mën koo jëriñu mu mel ni am na ay bayit bismillaahi maa ngi doon di way sa toog yonent bi waaw soxna laa ni Seydi Abdoulaye jukkal la war ma àddina yaa ngi dégg de bismillah maa ngi soxna laa Seydi Abdoulaye jukkal la bismillah maa ngi di way sa tëb yonent bi yonent bi soxna laalim Seydi Abdoulaye waaw di way bi waaw wallaay soxna laalim Seydi Abdoulaye njukkal la na àddina war nañ ko njukkal nag soxna laali ñoon lu tax waaye muuminatun aabidatun waaw muinatun li rabbiha ah. njukkal la war dañuy leeral soxla daal yoon nga xam ne barkal la macha allahu taala ci ay jikkoom kaana nekkoon na saalixatan di ku sell la jigéen ju sell la boo xam ni ahlullah yëpp seede na ni tambaambalu doo ko gis ku dul exemple boo xam mën nañ ci jël jëriñoo ko seen fii ak fa jëm kaanat saalixatan kaanat nekkoon na saalixatan di ku sell la abidatan hmm. ku jaamu yàlla la woon ku gëmoon bàyyi lay ak sëydi la muminatan li rabbiha muminatan nañ ci dara ku ne xam na ni suñu waaye ku ku gëmoon yàlla la waaye ku wóoloon boromam la soxna laali ñu ziyaare yaa nag xam nañ ko a waañ bi firnde yaa ngi ni njukkal la war na àdduna dafa utiliser ñaar muuminatan ak muuqinatan muuminatan mooy koo xam ne gëm na yàlla waaye ba mu gëmee yàlla wóolu suñu borom moo ëpp doole sax gëm yàlla nit muuminatan muuqinatan waaw jimbi ñaari baat yooyu gëm yàlla ak wóolu ko moom la ne waxoon ni ñun gaa ñi bàyyi laay nañu gëm te wóolo yaakaar te doyloo ñun gaa yi nanu gëm dooloo lay lay gëm te woolo yaakaar te doylo lay lay jalaalo nun gaay sama gaay nanu gëm te woolo yaakaar te doylo lay lay lay lay dégg waaw waaye mun ta yaatu si la bokk de kon la wax nii suñu bàjjal laali ñëpp xamee nañ ko loolu waaye yemuloon foofu de nekkoon na koo xam ne ci bëyit ya nga xam ne bëri na waaye ñu barkelu si leen na fahiya sujaatun fa hiya sujaatun fa hiya sujaatun li diini imaamil mahdi li diini imaamil mahdi waaye muinatun nag muinatun li nisaa'il aalamiin xam nga lan jàmbaar dëgg la woon ci diine Seydina Limaam bi waaye sujaatun jàmbaar la woon ali ma moom jàmbaar la woon dey soxna laali njoon waya sajaatun li diine imaamil mahdi li diine imaamil mahdi yoon bii yoon seen alimaam bii soxna laali njoon xam dañ ko ci mu'inatun li nisaa'il alamin eh tam man saara ngi nii soxna yaa ngi nii xam ngeen ni da daan jël soxna yi dajale leen ba yoof jël ay xeetu am am di leen ko jox naan leen liggéey leen def leen seeni projet yemul ci loolu jël alalam jox leen ñu dem fii ba Gàmbi uti ay matériel ngir ñu liggéey kooku kay mu inatu ni sal alamin mu inatu li ni sal alamin waaye am na leneen loo xam ne xam nañ ko ci moom muy loo xam ni moom la arab di wax ni al araqu dasaasun sidit day rogalaan wa warisa it ama taami wa warisat soxna laali njoon na itaami taami foo ko fekk mi ngi jël ay ñam di ko jox jaamu yàlla yi li jaddi hal karami fan la ko jële mi ngi ko jëlee ci maamam bu tedd ba soxna laali njoon wa warisat itaami taam maamam jooju fan lay tàmbalee ci Seydina Limaamul Mahdi Muntasar ndax xam ngeen ni bàyyi laay bàyyi laay ah maam Kumba Ndooy ah muy ñaari maamam nga xam ne naa maamu da daan daka daan jaral mu dox ay ay ay kilomètre